bari na ay avancé bari na ay jafe-jafe des na lu ñu war a def ak lu ñu war a xamle xam benn tey jii bu njëkk dañoo fogoon ni cancer kat du feebaru suñu askan defoon nañ yëfi tubaaba ba ma tàmbalee di ci wax 1984 booba laa leen def leen ndànk yëf yi du woon du lii ñuy wax ni du dëgg cancer a ngi fi te li ñu ciy gis dina yokk fii at la may ragal mooy fii ak at dinañ fi gis ci cancer loo xam ne ni duñu ko mën a dékku ba ma koy wax nag amoon naa ci ay firnde parce que dama ñëw 1984 jógee maternité doonoon euh, interne gynécologie obstétrique jaar chirurgie général jàng chirurgie soog a ñëw cancérologie booba dama gis ba ma jëlee dossier yi de 1954 à 1984 ma gis ne yëf yi doon doxe ci la ne lii mi ngi fi depuis longtemps te nga yokk dina ñëw nii ak nii ak nii lañ war a def booba nag teg nañ ma fi sax presque doof hmm. ma dem jàng ji dellu siwaat ñu ne ah bu ñu jàngee ñaari xam-xam ñett rek ñëw dellusi si defe nii dëmm dëmm dëmmalu ci biir nit ñi fayal ma télévision bi kii dama ko ragal moo cancer kenn ñama ko fi woon tudd à l'époque à l'époque mm. Amadou Mbaye woo ma ci télévision bi ma toog di wax ak ñoom Fanta Kanté jógee tib fële ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ne ci di ci dox di ci wax et ba tey ji ñu waroon a am kuréel boo xam ni bii moom mooy natt feebar bi loolu ba démb maa ngi ciy wax li ñuy wax registre des cancers waaye yow soo nattul feebar nag ngay xame ni mi ngi fii nu mu toll fu mu jëm fu mu jóge te loolu yépp outil yaa ngi fi instrument yaa ngi fi outil yaa ngi fi instrument yaa ngi fi. lan xam nga boo dee jël ay mesure benn ñaar ñett du mos a dox da nga yore programme parce que bañ jógee ci Sida dal di def programme national Sida. Mm. wax jeex xoolal Sida léegi wàññeeku na bu baax. ña ca feebar ñu ngi leen di defaral donc la mu laaj cancer moom mooy programme mën naa fi nekk nag naan la at mu nekk onze mille cas lii ak lële yooyu wax dëgg yàlla du looloy wax ci xam nga lii wax ji mooy. il nous faut programme. il faut un programme national de lutte contre le cancer programme bi bu mu doon kayit bu ñuy bind. na doon loo xam ne nii dañu ko teg def ni objectif yi lii la ak lii méthode yooyu pour atteindre objectif yi bii méthode bële bële bële ak bii diw ak diw ñoo war a régler lii xaalis bii lañ ci war a dugal nii lañ koy natte lii lañ ci xaar chaque année ñu joxe résultat mais mais docteur est-ce que bind nga ci loolu bind nga ministère wala président pour expliquer gën leen expliquer ñu gën a mën a comprendre. xamatuma sax ñaata yoon laa bind. xamatuma ñaate yoon laa wax tontu ñu la sax. njëkk nañoo def benn programme këyit la yam kayit temps boobu jamono yi Abdou la woon kayit. Hmm. bu ñu circulariser rek ne voilà programme de lutte contre le cancer baa ngi nii. dara demu ci. rek. président Macky Sall bàkkoo ko nag. nekkul rek damay egsi. Mhm. bàkkoo ko jamonoy Ablaye Wade di tam ñëw man mii ma jiite kuréel bu rëy ak ay nit ñu toog ay fan tëju génn programme bi jox ministre la santé ba fi nekkoon ba tey ba sànq. ñetteel bi bi Macky Sall ñëwee toog naa ak moom man fogoon naa ni audience bi trente minutes la ñetti waxtu la mujj duré hmm. muy bind ma génn ci ëllëg yónneewaat ko concept note hmm. ñu woo ku ñu naan professeur Mamadou Diop jox ko mu defar dugg ci biir biroom tëju xam naa jël ci programme ya amoon projet yépp daal di defar programme joxe ministère de la santé mhm. la ma gis nag gis naa ay infrastructure ak action yu bari xam nga kenn daaw fi tudd cancer léegi mu ngi ci génn ñëpp mhm. ñëpp foogoon nañu ko am cancer dee nga jóge na fi ñu bari xam nañ ni bu ñu amee cancer teel a ko gis teel a faju wér ñëpp d'accord nañ nit ñi ci ëpp bokk ni cancer mën nañ ko prévenir mën nga ñàkku bañ am cancer mën nga def lii bañ am cancer mën nga bàyyi sangara bañ am cancer mën nga bàyyi cigarette mën nga lii donc mën nañ ko prévenir mm-hmm. ñeent mën nañ ko dépister maanaam teel koo gis juróom mënees na ko faj xam nga loolu kooku avancé bu rëy la mm-hmm. ci dernier année yi lañu ko def ñaareel ba mu di lu am solo muy ni nañu leen jàngal nit ñi ñuy faj cancer xam nga lu doon problème ba mm. bourse nit ku jàng si primaire sa baay fay secondaire sa baay fay supérieur sa baay fay mais boo jeexalee njàng mais sa baay mënatul dem na retraite waaye yow fooy jëlee xaalis pour dem am bourse dem jàngi waat spécialisation foofu Macky Sall def fa lu rëy joxe bourse nit ñi def chirurgie des cancers ñi def chimiothérapie ñi def radiothérapie. donc normalement problème warul am kon. problème warut a am waaye nag lawoon daa bari ba toll ni mënoo tëb tëb rek. joxe 100 bourses. d'accord